ñu ngi fii ci darul stade Léopold Sédar Senghor fii nag foo sànni say gët xar la donte tabaski weesu na ñeenti fan a ngi nii. Euh, macha allah kenn ku ne jaay nga ku ne am nga xaalis mais problème mooy xari xaajuñu. am na loolu yoo xam am na lu dem am na lu des. xoolal gétt bi am na lu bari lu des fi yeneen yi am na lu des fale koolal yëpp kar la. jaaykati xar mi nekk ci liggéey bi depuis 1984 jàpp na ni li ko waral mooy a doy rek. tabaski gi daal ndool ndool la quoi mais li fi ne dafa doy. doon dem ba mu yàgg comme nii ñu def nii Mali ñëw Mauritanie ñëw Niger ñëw réew yëpp ñëw ñu ne Sénégal. di at yi di ñëw mooy rawati ndax yarum xar mi ci kër yi. lu waral loolu xar fii Sénégal xar du fi manqué incha allah xam nga lu ko waral. tey gis nga li fi nekk ci xar ëpp na 5000 moto xar yoo xam ne yu ndaw yoo xam ne ñu ngi jënd di suuf di yóbbuwaat di yar ci kër yi xanaa xam ne kër goo dem benn kër ñaari kër ñetti kër xara nga fa. moom nag li muy xaar mooy nga na lay. waaw waaw ñu ñu jóge mag seen affaire baax na ndax xar yu mag yi yu bëri jëriñu ñoom xar yu mag yi lañ soxla ku jóge mag kay boo ñëwee da am ndawal nu la neexee am na xar yu ndaw am na xar yu mag. directeur de l'élevage des productions animales def na bilangu tabaski bi mi ngi xam xamle ni lu ëpp 35000 xar jaayuñu leen jaaykat yi ñu fekk fii ci stade Léopold Sédar Senghor jàpp nañ ni du lenn lu dul xar bare rekk ci marché bi